ñoo ngi lon di wax ci ne bari na yo xamni ne ko sëriñ ba doon jangale ak nam gu doon waxee wute na lool tay ak nun niñ koy dundé wax nañ ci yennat dañu bëgg ñëwaat tay rek ci lu gatt rek ndax li lepp ab tambal rek la ci émission bi ci jotaay bi inshallah allah ci misal walu jaamu yalla buñ ko jëloon dañu gis né nan nun tay niñ koy dunde ni wuute na lool ak la sëñ ma doon wax ci lu baree bare maa ngi am loo xam ne dinaa ko wax ci njëlbeen gi mooy su waxee ne wuute na jublu ma ci ñëpp koy def ndax temps mi muy matale baaxul murit yi ma doon wax léegi du ceegeen ñëpp a ca ne am yoo xam ni ñaa ngi ca la sëñ bëggoon ci anam nga ko sëñ ba bëggee ba léegi nii am na waaye li ma jur mooy ñu bari rek ci suñ biir ñoom la loolu dal tey am na ci eh, nit ñi ñoo xam ni rawatina ñi nga xamne ma ngi jégul yalla natoo ñi jang tubaab bari na ñoo xam dégg nañu am ci murid gi nii mooy boo xasee dugg rek loolu sax du ci jang tubaab waye ñepp la rek am nañu japp xam jàpp nañu ne boo xasee dugg mbooleem jaamu yalla yépp wacc na la am nañu ñu dégg noonu ak murid nga xamne jaamu yalla ñom ñoom boo xasee dugg jébbalu fenn di joxe addiya da ngay jàpp ne dem jaamu yalla yépp wacc na la am nañu non lañ ko déggee té non lañ ko gëmé itam loolu xam nga amna amna na ñoo xam ne ñoo tane ñooñu mooy ñoom yenn ti jaamu yalla lañ bay yi ci dess ñu diko def amna na ñoo xam ne ñoo gën doy war mum nga xam ne moy mooy da ngay dugg nek mourid boko ko doonee lu la neex ci moy yalla nga dekk ci di mana di dina sangar nek ci jigen lu dégg moy yalla nga nek ci lolu amna na ñoo xam ne suñu nu nong ay wax la yo xam xena neexu ta neexut ni waye lu wër la sun bir amna na ñoo jaamu yàlla moom fonkatuñ ko te ak mooy yàlla itam defuñu ko muy dara loolu nag buñ seetloo Sëriñ Tuubaa ci boppam dafa da cee digle digle digle yoo xam ne yu yu ferme la ci waxeem maanaam yoo xam ne da amut nuñ ko tawile man foo xam ne wax ne wasaytukum yaa man taallaqu biya mboolem yi yéen ñi aju ci man maa ngi leen di dénk tey fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya anam gu ngeen mën a ano ajo ajo ci man rek ci lu nëbb ci lu feeñ nu ngeen mën a fexe ba di ma tuddoo ak ku mën a doon rek maa ngi lay dénk maa ngi lay dénk tey li ma lay dénk mooy antatru ko muharraman mooy lépp lu yàlla xaraamal nee ko fa ñukk bul ci bul ko laal wama kuré waxuma lu xaraam waaye lu ñu sib nee ko fa ñukk bul ko laal li wajhi rabbikum wa kulla mustabah wala mustabih lépp lu lënt itam nang ko fa ne ñuk waxuma la lu haram wala lu luñ sip waye lo xam dal leunt ngay gam gam ne baxna wala baxut ne ko fa ne ñuk bul ko jëfandikoo bul ko jege bul ko laat ndigal la lo xam ma ngi jox kep ko aji ci man ak kep ku may tuddo ak no ma mëna tuddo walazimul wajiba wal manduba na nga sax yow ki may tuddo ak ko man doon wax de na nga sax ci ci wajib moy li yalla faratal ak lim sop wal manduba ak li yalla sop wa faariqil bidaa wal ahwaa lépp loo xam ne bidaa la mooy lu yees luñ sos te bokkul ci diine na ko fa ne ñukk te ak i bànneex lépp loo xam ne topp bànneex la itam maanaam sa bakkan rek la moom la neex nee ko fa ñukk bàyyi ko fa loolu ndigal Sëñ Tuubaa lu ferme amul lu ñu tawil loolu du lu ñu tawil tey bidaa yooyu buñ ci duggoon masal nga xam ne mën a bañ a nekk sax biddaa boo xam ni comme luy daab diine waaye ci biir yoon rek li nga xam noo ko dugal seen bopp man li ma seetlu li may wax toujours sama mbokki télé bi dama leen wax ne damaa seet ne nun léegi suñu télé bi ci suñu xeli bopp yi lañ koy tëggee kenn ku ne sa xel ci ngay tëggee ni nga war a dundee sa télé bi waaye du ceegee ne ngay jëlee seeni sa loolu nag sikk la su soo xam ne dugal na lu bare bare bare yoo xam ne kenn mënu ko wax tey te sëñ Tuubaa da wax ne bii ubtidaan lu nuqulu jaat bihi manam li ngeen li li liñ tuxale li ma tuxal bam ak jële ci yonte ba jox leen ko loolu bu leen ko jënde mukk lu ngeen sos non la ko sëñ waxe jaay jaayi leen li ngeen sos jënde ko li ma leen tuxal bam ak ci yéen masalan fi ne loolu bari na am na ci waxati boko boko waxe eh, ñu japp ne yow da ngay ki way fekk lu am solo masalan ci misal walu tuddu yalla mi ñi tuddu yalla defal nañu ko ci ci ci ci ku ñaan wax nabi dengam nga am istighfar ak tuddi la ilaha illallah yoyé way fi na ni nun sun bop ku ne xam nañ ci bir sa sa nañ sun tuddi yalla bop yo xam lu bax sax lañ ci jublu waaye maanaam Sëñ Tuubaa bàyyiwu ko fi yo xam ci walaf lañ koy wax wutal koy lim di def jublu ci lu bax ak jublu ci positif ak kat te fek lol señ tuba digloon ko junju doyna borom borom xam te lol bari na sun bir xam nañ ko kon Sëñ waa loolu moo tax mu ne bii xobti daaxan bi la di lu jaar bi li ma leen jox doxalal leen ko mu agsi ci yéen bu leen ko jënde mukk li ngeen sosal seen bopp jaay leen li ngeen sosal seen bopp te jënde ko li ma leen doxal kon yi ay ndigal la yoo xam ne ci wàllu jaamu yàlla murit bi sëñ te def lu xaram murit du def lu sib mu du dugg ci lu lënt du ko jëfandikoo du ko def murit waxtu ne ci ñaar lay ne waajib ak mandóob mooy li yàlla farataal ak li yàlla sopp Sëñ Tuubaa wax ne mumtasilan amra ilahikal jëli muttabian sunnata xayri mursali mooy na ngay def li yàlla bëgg waaye nag na nga koy jaaree ci topp sunna si yonte bi alayhi salaatu wasalaam is fi itibaa'iha takunu saliman wa fi ixtilaafiha takunu zalima saa yoo gën loo gën a jege sunna si yonte bi alayhi salaatu wasalaam yaa ngi gën a mucc di gën a jege Sëñ Tuubaa loolu loo ko gën a sori nag yaa ngi gën a nekk aji tooñ joo xam ne yaa ngi gën a sori yàlla yaa ngi gën a sori Sëñ Tuubaa foofu jar nañu leeral ne sunna si Yonent bi aleyhi salaatu wa danañ ci ñëw nag ci biir jotaay bu soobee yàlla ci anam ko gën a gudd maa ngi digg rek waaye bu soobee yàlla lépp noo ngi ñaan yàlla defal na tawfeex nu mën koo indi waaye sunna si yoonte bi mooy la Sëñ Tuubaa doon dund te doon ca jaarle mag ña ci gàttal gi jamono ji dafa am ñuy ñëw indil nu sunna su yees ko xamne sunna seenu serigne sunna Muhammad ibn Abdul Wahab wala sunna ibnu Taymiya lañ ñew bëgg ñuko ko tax ñen ci nun manam manam far sax bëgg bañ baatu sunna bob dana raddu fi an laydan lool nak ñoomte la noonu sunna si yonente buñ ci kenn jere ndax seigne Tuubaa abdullah ne wala takun mufarritan aw mufritan bal istaqim fi sunnatin wa aqsita bul eppal waye bul yeesal na nga sax ci sunna mooy li nu Sëñ Tuubaa bàyyee foofu lañ war a nekk loolu mooy ndigalu Sëñ Tuubaa kon na gaa yi yees yi indi seen sunna yu bopp wala sunna seeni sëriñ bëgg nu ko jàngal noonu lañ fexe ba xam sunu sëriñ bi lam nu jàngal te mu wóor na nu moo wër sax ca loole waaye bëgg a mere ñële ba far bàyyi sunna loolu moom sikk la moo tax loolu lu mat bàyyi xel la foofu mën naa fee jaarale rek xisa boo xam ne boo am solo la mooy gaa yi yàlla yi nga ku yàlla ku wóor nga and ak mom da bokut ak di jële ci téré rek ay ay ay wax wax wax sunna donc dana ko misal ci Cheikh Abdoul Aziz Dabakh ci iswaram am dañ ciy nettali ni bi mi jang dafa yeex mokal alquran alxuraan dogal mu jang dir bu yàgg ay fanera at jëm kaw te ta xam ta wess suratul layli ci ci iswar bu ma ni mu ko nettali nee na bu bi ko da jangal bu sa di jangale day ñew tok day ñew tok ci jotaay bi mi jàngalee ñuy def léeg-léeg sëñ bi jàngale ba noppi Cheikh Abdoul Aziz da bax wax ko ne ko hadis bi nga doon wax de dama yaakaar ne sëñ bi daa wérut <laughs> sëñ bi ne ko yow Abdoul Aziz lu sa yoon ci hadis bu wér yow yaa ngi jàng alxuraan soratul layli mënoo ko wees nga ne ko la jënd hadis bu wér bu wérut ci suba sa ëllëg sa sëñ bi toogaat di jàngale bañ génnee Cheikh Abdoul Aziz waxati ko ne ko hadis sàngam dama yaakaar daa wérut mu ne ko yow daal damay karne yow lu sa yoon ci addis waaye bu demee xool yi gis ne ndakate li ko sëñ bi wax wér na ndakate addis bi wérub woo ko ko yow noo xàmmee addis bu wér bu wérub mu ne ko man damaa gis booy wax addis damay gis genn leer gu ànd ak xadis bii genn ci sa làmmiñ am xadis yoo xam ne boo koy wax duma gis leer googu ma jàpp yooyu kon mooy yi wéru mu ne ko yow kay moom yow yow rek yaa xam addis bu wér ne ko bu may jàngalee te da ngay toog nii rek ndeysaan sa Cheikh Tidiane Gueye noonu la ko daan nettalee nee na ne ko mu ne ko daal bu may jàngalee da ngay toog nii bu ma waxee addis daal xool la boo ne nii rek moo ma xam ma waaye ci misaal da ngay gis ne nitu yàlla yàlla day defal ma maanaam maanaam yax furqaan li mu tuddee furqaan ci alxuraan yaj'al lahu furqaanan maanaam yàlla da leen defal leer goo xam ni ci la ñuy xamee li wér ak li aywa suñ borom leer googu li yonte bi daa wax ne ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nuurillaahi maanaam aji mu'min aji dëgg-dëgg yàlla koy jox leer goo xam ni ci lay xàmmee li leer ci leeru yàlla ci lay xoole la yonte bi wax yanduru bi nuurillaahi leeru yàlla ku ci xool ne mën nga ko gis da ngay xàmmee mbir yi feneen li mu wax ne aw aw kaana mayitan fa ahyaynaahu wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas fi nnaas maanaam yàlla da leen di faat mooy faat seen bakkan yi ak seen i bànneexi bakkan def leen nag ñu nit yàlla yoo xam ne yàlla rek moo leen moo leen moo leen mooy nekk seen xol ñooñu nag yàlla da leen jox leer gu ñu doxee ñu xàmmee lépp mbir mu addi si yonte bi sax dañuy xam li yàlla li yonte bi wax ndax ndax anfaasu yonte bi da ci ne nooxi yonte bi ruuxug yonte bi leerug yonte bi day des ci waxam wax ju ne ibnu ataylah sikandar wax ne kullu kalaamin yabruzu wa alayhi kiswatul qalbi alladi baraza minhu wax ju ne bu génnee ci xol xol ba da koy da koy jox mbubbum maanaam na xol ba mel da koy solal mbub moom loolu moo tax nga gis fi ne xasida yi ñuy jàng ay baati arab la rek am na sax ñoo xam ne xëy na mas nañoo wax maanaam baati arab la yoo xam ne ku ne mën na ko wax waaye Sëñ Tuubaa bi mu génnee ci xolam fi ne moo tax boo koy jàng mu am jeexit yu muy def ci sa xol nga di ko yëg kenn ku ne ko jàng xasida da mën a xam li mu wax c'est li kon wax bu génnee ci nit dafa am kookee lu cay bàyyi xol kooka moo ko bay leer ga ak melaw xol boobu wax yooyu nag moo tax gaa yi yàlla yi bu ñu gisee xadis yonte bi dañ ko xamee moo tax ànd ak ñoom jébbalu ci ñoom comme nii nu def na moo gën a mucc ne gaa yi def kaa ne topp rek naa Buxaari wax na fi Buxaari yoo xamu ba xam Buxaari ci moom sax am na am déet dañ la ne rek am na te nii a ajjaameo sax yi téere bi moom étage yëpp wér nga nekk ci te Buxaari ñaari téeméeri at ginnaaw yonte bi xëy na la doog a téere bi masalan si imaamul Buxaari mokkaloon na téeméeri junni xaddis yu moom moom moom moom imaamul Buxaari te saxiixam bi ñeenti junni xaddis ëpp ko ak tuuti téeméeri junni xaddis laa la moom la mokkaloon te sax al jaamiu saaxe ñeenti junni xaddis ëpp ko la ci la mokkal lépp xam nga ñëwagut Buxaari ak Muslim ñaari téere yëpp boo leen boolee mutut ay juróom-ñetti junni xaddis la maanaam mutut fukki junni xaddis te ñoom ñaar kenn ku ne doolal nga xaafis mooy mokkal nga téeméeri junni xadis amoon na ñuy tuddee amirul muminina fil xadis mooy ku mokkal ñeenti téeméeri junni xadis comme ibnu xajar al asqalaani imam malik am na ñu koy wax lu mel noonu te ñooñu maanaam xadis yi fi ne yëpp fi ne bu ñu ko dajaloon du mat fukki junni maanaam du mat daanaka fanweeri junni xanaa gën jabari yi wér dañuy gis ne kon lu xadis masalan bi waaj ñëw ci moom ne ko dénk ma mu ne ko laa tax dab bul mer loolu xadis la xadis bi mooy ibaara bu gàtt wax ju gàtt yooyu nag yéntu masalan daa xutba ajuma xutba ajuma yi mu daa def rek fi ne boo ko dajalee mu mat lii fi ne fi ne ci xadis ci nga yëg ne masalan sayidna abou bakar nga xam ne moom moom mooy ki njëkk ànd ak bi te mos a teqalikoog moom benn yoon te lim net li ci xadis yëpp pour ñetti téeméeri xadis ci nga yëg ne kon xadis boo ci bëggee dem nii jëlee ci sa diine da am jafe foofu sax maa ngi koy topp mi ngi gudd waaye li ma bëgg mooy ñee di ñëw jóge penku li ñu indil nun li ñu yor daa dëgër ba noppi li am solo mooy nan ko xam te nekk ci te bëgg a jàmmaarlu ñoom wala nga bëgg a xuloo ñoom loolu la jaral mukk nga ne fi ñukk yonente bi alayhi wala xad wala sunnaam loolu boo ko defee da ngay sori sëñ Tuubaa da ngay ñaar yoon ñee sax man nañ la gën a aw demin kon sëñ Tuubaa loolu la ñu wax na nañu ne wala takun muntabida sharia bul wàcc mukk sharia waaw fa nabduha ila rada daria ku ko wàcc kuko wacc mom moom ji yaangi ci yoonu alkane wa man bahr al haqiqati bila fulki shariati fa xumquhun jala lolu suñ di wax kep ko xamni yaangi ngi ci geejju haqiqa te jare wo ci galuk sharia yow ku dof la ndax faw nga lab maanaam sa xel neexut te faw nga lab ken mu la te lab haqiqa bo jidan ci ba bayyi sharia yaangi ci lo xamut kon lolu lepp dana ci ñew insha allah waaye gis nga kon jaamu yàlla tey nañ ko dégg noonu ak ñu bari ñu ko déggee ci noonu wuute na ak na ko sëñ ba doon waxe sëñ bi mosut a woyofal dara jaamu yàlla.